sëñ bi mbay Jacques Diop ñu ngi lay nuyu. Ngoz maa ngi lay fay. jërëjëf ngay taskatu xibaar conseil technique en communication ci ministère des sport laaj bu njëkk bi d'abord en tant que observateur euh, ban xayma ngay def ak jàngat euh, gannaaw Coupe d'Afrique bi nga xamante ne Sénégal euh, ci la amee ndamam bu njëkk ci Afrique. waaw xam nga maa ngi nuyu d'abord tous les auditeurs de Rewmi FM di leen ñaan en tout bés bi nekk si ñoom bésu jàmm bésu mbégte mhm. di ko ñaanal bépp doomu aadama di ko ñaanal aussi réew mi di ko ñaanal ñëpp ñu di la wax rek nekk euh, d'abord euh, euh, résultat bi mhm. Jacques mu nañ ko analyser ci angle yu bari ci fànn yu bari mhm. bu ñu jëlee fànn politique bi da xool ne victoire bi tax na toute la classe politique ñu daje Mm-hmm. ñoom taxaw di waxtaan mu mel ni dara amoon te ñu ngi jóge woon ci élection xaaxar yi bëri xeex yi bëri wax waxante yu bëri. Mm-hmm. président de la république invité la ñoom ñëpp ñu daje toog waxtaan mu mel loolu moo lay won ni donc football le sport est magnifique mais le football est magique. Mm-hmm. mën nañ ko analyser aussi sous l'angle géopolitique géostratégique. parce que ak diplomatique même parce que ñoom mën naa leen boole. tënk leen parce que le président de la république à la veille il a été investi président à l'exercice de l'union africaine ñu jox ko loo xam ne moom mooy doog toog ci en tout cas boppu union africaine nekk fa kilifa mu nekk mu jot ci wàllam <coughs> mu nekk aussi loo xam ni Sénégal dafa gañ ndam gañ ndam bi mooy que ni ñëpp ñu ngi doon xool Sénégal ñu bari boo gisee ci réseaux sociaux yi soo gisee ci euh, en tout cas réseaux sociaux yi muy média sociaux yi ak réseaux sociaux yi ak les télévisions étrangères ak partout dans le monde ñu ngi doon en tout cas saluer cette victoire du Sénégal. Mmh. Euh, sur le plan diplomatique Sénégal aussi dafay am un rayonnement rayonnement bi mooy que ni président dañ ko fal ñu gagné loolu dafay gën a rayonner Sénégalais parce que de tout le temps on disait que le Sénégal n'a rien gagné tey gagné na donc bokk na. le Sénégal est logé à la même enseigne que hmm. des équipes la l'Afrique du Sud, que des équipes comme le Maroc, que des équipes comme la Tunisie, dans la même enseigne que ces équipes-là. Hmm. ak yeneen équipe donc tey fu Tunisie waxee gagné nañ ñu leen ñun ñu ne yéen gagné nañu benn te ñoo leen ëpp luñ dem final Maroc fu ko waxee ñu ne ko ñoo ëpp leen dem final te gagné nañu. Hmm. ñu jël ko aussi sous l'angle sportif. comprendre mooy li ma wax mooy loolu ñu jël ko sous l'angle aussi. économique parce que angle économique bi hmm. dafay am lu ñuy wax monde marchand ak monde non marchand parce que soo xoolee loolu yëpp ñu ko ŋànk mooy secteur public ak secteur privé parce que ñooy ñoom ñoom mën a tey tax export hmm. euh, am doole boo xam ni dans une activité économique mu nekk dans la publicité mu nekk ci sponsoring mu nekk ci habillement mu nekk même euh, ci mécénat hmm. parce que am na ñoo xam ni dinañ la sponsor yi am na ñoo xam ne tey ñu ngi bëgg par exemple ñëw parce que dem démb par exemple avant-hier am na benn banque bu ma woo ne ma dama bëgg coupe bi. Hmm. ma ne ko man loolu il faut se rapprocher de la fédération parce que ñun loolu du son war dara. Hmm. te banque boobu mosul sponsorisé donc ça donc dire que quelque part dafay am valeur sportive am lu ñuy wax valeur marchande. Hmm. tey la fédération moo war a mën a capitaliser loolu impact boobu mu capitaliser ko en retombée économique pour xool nan lay mutualiser aujourd'hui mhm. contrat yooyu yëpp nan la di mutualiser pour que mu jëriñ la ligue amateur la ligue professionnelle le nawetaan et même le sport scolaire ak les autres catégories le le sport féminin. Mhm. donc ñoom am nañ ci liggéey bu mag bu ñu war a jouer ci donc moo tax ma ne la euh, euh, boo xoolee mën nañ ko analyser ci fànn bu nekk lu nekk nga génnee ci mais nag yaa koy capitaliser yow yaay xam yow nan nga koy tey impact boobu nan nga koy jëlee pour capitaliser ko nga xool aussi nan nga koy aussi harmoniser ak peut-être lu ñuy wax fiscalité boo xam ne dina am avantage pour club yi parce que loolu yëpp dafa nekk lu am solo. Mhm. yow euh, nga def campagne yu bëri ak gaynde yi en tant que journaliste et puis euh, ci officiel sax euh, ministère des sports lan nga jàpp ni génération bi am nañ ko yu ñeneen ñi amul ba tey ñu jël li nga xamante ne moom la Sénégal doon xaar ba mu moomee boppam ba léegi. xam nga gaynde yi li ñu am dafa bari. Hmm. soo jëlee par exemple génération ñoom Boubacar Sarr Locotte ñoom sama Bakone tey li gaynde yi amuñu ko ñoom dañ daan sax fay. fay pour jënd carburant pour def ci kam pour def ci bus bi pour mu dem yóbbu leen entraînement wala pour mu dem yóbbu leen regroupement ay professionnels parce que man fekke naa ko mm-hmm. mais tey dafa am loo xam ni ñoom dañ ko am amul dara dara lu ñuy bu ñu ñëwee boo xoolee ces jours yi ay saak yu ndaw la ñuy indi saak yu ciy nekk seen ay effet personnel moo ciy nekk bu ñu fa ñëwee dinañ fa fekk seen ay équipement sportif bu ñu fa ñëwee dinañ fa fekk c'est tout tout tout logistique lépp loo xam ni soxla footballeur soxla na ko rek de haut niveau pour dem à la gestion de la performance soxla na ko ñu am loo xam ne aussi kenn am ko dañuy voyager avec un avion spécial fu ñu jëm au bas mot ça va entre deux cent trois cent millions au bas mot mhm. donc ñuy loger tan les hôtels les plus huppés gis ngeen Radisson bu bu bu Diamniadio dañuy c'est c'est l'hôtel le plus cher aujourd'hui du Sénégal buñ la waxee une nuitée combien ça coûte da ngay taf sa nopp donc loolu yëpp lépp président Macky Sall jox des instructions au ministre des Sports mu ànd ceeg waa fédération ñu ciy liggéey soo xoolee aussi joueurs yi dañu am benn comportement boo xam ne c'est très rare nga gis ko mu am en équipe nationale mosoo dégg les joueurs la mu am problème au sein de la tanière même su amee problème kenn du koy xëy na Aliou Cissé dina ko gérer cela veut dire que quelque part aussi y a un style de management qui permet à cette équipe nationale d'être performant aujourd'hui cette équipe là au niveau de li koy waxee ci fànnu performance bi même détails yu gën a yomb yu gën a yu gën a kii duñ ko bàyyi dañuy jël lépp tënk ko xool nan la war a performance bi lan moo ko war a indi performance bi lan moo ñu ko war a xañ ñu teg ko fële de côté lan moo ko war a indi ñu def ko donc loolu entre le ministère de sport et la fédération sénégalaise de football donc am na ñu benn comité mixte boo xam dañ ko taxawal comité mixte boobu da leen di permettre saa yu ñu demee bu ñu amee kii ñu dem mission de prospection bu équipe bi waree ñëw une semaine avant am na ñu dem un agent du ministère ak un fédéral dem nañu pour la mission au moins avancée loolu moo lay won ni donc football tey toll na fi nga xam ni lépp c'est de l'anticipation anticipation moom moo lay permettre nga am résultat et puis ñu am aussi ay dirigeants yu mot dirigeants yu mot taxaw ñu am aussi kilifa goo xam ne aussi lépp lu ci war a taxaw dina ko def avec le soutien aussi du ministère des finances loolu il faut ñu delloo leen jukkal aussi parce que dañuy fàtte ne rek yaakaar ne sport la mais tey bu doxee aussi ministère des finances am na ci wàll ñu delloo leen jukkal parce que ñoom ñoo ñuy jàppale aussi. Mhm. Euh, ñu gis ni kon ba ndam li amee euh, am na ñu euh, lu rëy muy ndàmpaay nga xamante ne njiitu mi moo leen ko jagleel ñu yaakaaroon ni kon lu weesu joueurs yi xëy na encadrement technique bi ñoo ciy bokk mhm. waaye tey gis nañu ci lim sax. ay euh, kilifa yu bokk ci ministère ba ci fédération ndax loolu jàpp nga ni war na. xam nga dama la bëgg xamal benn affaire. Hmm. gis nga bu ñuy dem Coupe d'Afrique bu ñuy dem Jeux olympiques bu ñuy dem n'importe quelle compétition africaine dafa am lu ñuy wax un arrêté arrêté bi xam nga ñoo ñoo koy signé. Hmm. il est co par le ministère le ministre des sports et le ministre des finances ñoom ñooy signé arrêté bi pour ñu débloquer xaalis bi nga xam ni moom moo war a dem parce que il faut nit ñi xam loolu. Mhm. lii la prime exceptionnelle yoon mosu leen dégg ñu dem ñu ne Coupe d'Afrique dem nañu wala basket wala football wala handball wala dara ñu ne ministre des sports jël na prime mosu ko dégg te leen ko gis te du ngeen ko gis mu parce que nit ñi aussi des fois dañuy wax loo xam ne il faut mu wóor leen mu wóor leen leen lii maintenant le chef de l'État mhm. moom moo moom moo le ministre Matar Ba moo ko fi teg mhm. su ko neexee mu décorer ko ne ko dama lay sargal jox ko li mais loolu kenn mënu ci dara parce que loolu pouvoir discrétionnaire u chef de l'état la kilifa gi tey mun na ma woo man loo xam ne sama patron yëg ko mu woo ma neexal ma loolu kan moo ci mën dara mais mooy kilifa léegi moom la ñu fal. Mhm. mu teg mu xool Matar Ba woolu ko teg ko ci ministère de sports tey bu koy décorer bi mu ko doon décorer dafay tàgg dafa tàggu kenn. Mhm. bi mu dafa dafa tàggu mais aussi nit ñi aussi nañu delloo seen xel yàlla xam ne gis nga nit wërsëg kenn mënu ci dara gis nga Coupe d'Afrique bi ministre des sports Matar Ba la kooku yàlla mbiru yàlla yàlla moo koy def président Macky Sall la tombeel kooku mbiru yàlla yàlla moo koy def yàlla programme yi ne depuis démb te bu ñu réeree mbir ni gis nga àdduna il faut ñu am benn affaire Jacques bu ñuy xalaat xam nga lu ñuy xalaat. Hmm. lépp lu yàlla def programme yi ne ko depuis démb. soo xoolee ci euh, nu mu ci surat al imran suñu borom wax na ko ci comprendre donc bu ñu jiitu yàlla ci mbartama lépp programme tey dafa programme woon maa nañ toog waxtaan. donc moi je pense que. Mhm. lépp lu président Macky Sall def pour ministre am su ko décoré war na ko su ko joxee prime war na ko su ko joxee lu mu ko jox war na ko parce que moo ko samp moo ko teg moo ko ne yow laa wóolu kaay jël. Mhm. te aussi dañu dañu dañu am benn affaire. Mhm. ñun on a toujours essuyé des critiques tey nag xam nga sport lenn la da ngay tàngal la ak kaani. su su su méttee kaani gi buñ la ko sànnee nga toxoñu rek nangu ko. bu aussi bu bu mbégte amee aussi war nga mën a ci tàngal. aussi mhm. nit ñi nañ xam loolu. Mhm. Eh, gannaaw nag ndam li ñu gis ni kon euh, dafa mel ni dafa gën a kañ euh, njiitu réew mi Macky muy sonj sax gouvernement am ba ci ministre de sports bi la bi nekk sa kilifa ci wàllub kon euh, sukkaliyaat football fii ci biir réew mi ba ci sax wàllub infrastructure loolu naka ngeen ci fas yéene taxawee yéen waa ministère. xam nga ñun sumu kilifa. Mhm. lépp lu ko président Macky Sall mos a sant taxaw. ba pare ànd ceeg ay collaborateur am ànd ceeg cabinet ceeg ay directeur am ba tax na soo xoolee décision bi kañ la génn euh, man maa ngi ko lire euh, lors de euh, du communiqué di conseil des ministres du mercredi bii passé. Hmm. mais lépp lu ci lu mu ci wax parce que ministre lépp lu ko président instruction bu mu ko jox day woote woo collaborateur man réunion ñoom xool yan décision la ñu war a jël ci orientation yi chef de l'État joxe parce que orientation chef de l'État dafa mel ni décret. Matar Ba noonu la ko noonu la ko ministre koy jëlee chaque fois moom lépp lu ko président jox bu ñëwee la muy njëkk def mooy woote réunion ñëw président wax na lii lan mooy xalaat li moom parce que le dernier mot lui revient aussi parce que moom le président tànn ne ko doxalal ma espoir bi mm-hmm. te mi ngi koy doxal comme ni ñu ko bëggee ñu bañ ko ñu bëgg ko bu ñu amee résultat aussi il faudrait que aussi ñu ñu ñu delloo ko ñu ñu ñu fëgg suñu dënd mais delloo ko suñu borom donc moom noonu lay doxee fi mu euh, ngi euh, toppatoo inauguration bi parce que mm-hmm. l'inauguration du stade euh, de Diamniadio ce sera le 22 février incha allah mais li ñuy toppatoo inauguration bi aussi kilifa gi bu ñëwee convoqué dina convoqué réunion parce que bu convoqué réunion dina toog xool orientation yi président joxe ku nekk jox ci sa xalaat moom mu tënk ko ne leen def lii la def parce que am aussi ay techniciens yu mot technicien parce que aussi ministère des sports y a des cadres de haut niveau qui sont là-bas ay borom xam-xam lañ yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc loo xam ne administration du sport rek la xam moom la ñuy liggéey. Mhm. donc aussi nañu delloo bu bu buum bi mbooy mbooy rek xamu nañ koy defee. Mhm. nañu leen delloo njukkal. Mhm. delloo ko aussi parce que sport dafa doon secteur boo xam ne dafa metti te li muy euh, ngëmp moo bari donc loolu nag aussi tey yàlla def na ministère des sports ñoo am ndam mais ndam li dañ koy delloo njukkal waa réew mi yëpp delloo ko njukkal aussi borom njiitu réew mi parce que aussi moom mooy joxe orientation joxe nañ joxe moyens yi moyens taxaw ñi dem wuti indi ndam donc dañ koy delloo njukkal delloo njukkal aussi réew mi delloo njukkal aussi la presse dans sa globalité. Hmm. parce que la presse aussi quoi qu'on puisse dire Jacques c'est le premier partenaire aujourd'hui du ministère des sports même si par exemple presse bi soo xoolee ni comprendre nga. Hmm. ministère des sports bu seen tutelle mais dafa mel ni mooy seen tutelle surtout la presse sportive. donc gàcce ngaalaama ñoom gërëm di leen sant parce que ndam lii moom. donc duñ ko ndamoo sax mais dañ leen koy delloo njukkal. Mhm, mhm. jërëjëf kon ngay taskatu xibaar conseil technique euh, en communication euh, ci ministère des sports sëñ bi mbay Jacques Diop ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen euh, aussi ñaanal yàlla yàlla yokk man-man mi yokk am-am bi mhm. yàlla def ci réew mi jàmm. Jacques bi ñaan aussi que sunu mbokk militaires yi. ñu jàpp en otage yàlla ñu def ñu ci jàmm salaan mm-hmm. salaam ba ñu mm-hmm. dellu seen njaboot parce que ah. mm-hmm. ñun ku ci tëdd rek man chaque fois chaque guddi bi mooy tëdd rek ak sama njaboot ñoom laay xalaat donc euh, sama sama xel sama xalaat yëpp ak ci ñoom et saa yi mu jullee damay ñaan yàlla ñu dellu ci seen njaboot ci jàmm ak